sax ci jub jaamu yàlla nangoo liggéey nangoo liggéey sëñ bi mu nekkoon jëmm joo xam ne daawul dañ di soññ taalibe yi ci jaamu yàlla ak topp yoonu siraatal mustaqim sëriñ Abdul Hakim Mbacke mi ngi gane àddina ci atum 1937 wala 38 ci mbul di dëkk waajuram wa di cheikh Mamadul Bachir Mbacke moom xaadim rasul waajuram wu jigéen di soxna maam Khady Sylla sëriñ Abdul Hakim Mbàkke ci mbul kayel googu la jànge alxuraanul karim ba mokkal ko ginnaaw bi jàng na xam-xam ci yeneeni kilifa ñu demee ni sëriñ Mbàkke jaxate sëriñ mahmadan Mbàkke sëriñ abibu Mbàkke imaam ak sëriñ mbay ja sëriñ Abdul Hakim Mbàkke nekkoon jëmm ju dal teey waaye taxoo nag yàlla suñu borom. lan dégg mooy dafa ñëw àndaale xaasam ak tawfeexam xaas yooyu ak tawfeex jooju liñ ci dégg lañ ci mbëkk mën a njëkkee mooy ni ko sëriñ Mountakha di waxee sëriñ Mountakha daraan wax ne sëñ dafa jóg rek ma xam ko daal di koy seppi ci biir ay moroomam biir moroomam yooyu bu ñu ko doon sañ wax dañuy wax ne ñam moroomante ci ak ak ak ndawe ak ay tutànk wala boog ñu wax ne nit ak ay moroomam yamuy àndal ci jiitu ñuy dal alxuraan te mu taxaa ne boppam laa gis sëñ Ablaye rek daal di koy seppi ci moom teg ko fi ne xam ne kii du moroomam moroomam yi muy àndal kon loolu mën nañ cee daal di jànge lu bari kon daa jóg andaale xaasam ak tawfeexam eh, raw ak maasam ca ba mu jógagut loolu la sëñ Muntaxa teere ci mi nga xam ne tey jii moo fi xalifa général des Mourides daf ko tegoon fu kawe lool ñaanalal ma sëñ Abdul Hakim yi bu kenn ñaanal ku may ñaanal rek nag ma ñaanal suñu borom bàyyi ko fi mu am wér am yàgg fi lool ànd ak kattan mu nekk ci melo bii mu nekk nekk ci lii mu nekk rek naa mu wér na ko ñëpp ñaan naa mu wér am jàmm. daan ci seer na ci jamono yooyee nag la amoon fu mu ko teg moom sëñ Muntaxa fu mu teg sëñ Abdou Hakim sëñ am fu mu teg sëñ Muntaxa ci biir moroom yooyu. ñu ànd fa ànd baatin goo xam ne ànd googu lañ ànd ba ni ko sëñ Abdou Hakim tàggoo te noonu sëñ Mountakha noonu la koy wax loolu nag sëriñ Abdou xaasam jooju noonu la ko ànde woon ak sëriñ Basiiru itam sëriñ Basiiru seppi ko ci ay mag maasam ndax am fu mu ko teg ndax am lu mu xam ci moom loola nag bañ ciy dox moom sëriñ Abdou mu jaar ci jaar-jaar yooyee ban fàttali ko man de damaa fàttaliku ba ma njëkk gi sëñ Abdou rek la ma yàlla dimbale ci xaasam jooju mooy yàlla def ko ci sama xol ma bëgg ko waaye yàlla dimbali ma may itam mu bëgg ma ci xolam te loola at mi fi sëriñ Basiru jógee 1966 1967 ba mu ànd ak sëriñ Moustapha Basiru sëriñ Moustapha Basiru def tournée bu njëkk ba fekk ma fa may jàng alxuraan dama gis rek yàlla bëgg loo ma ci ab roomam laa fanaan guddi googa njël gam jógee di jàng xasida ak di jàng alxuraan lam doon jàng mbind maag nam meloon nag lépp bëgg gi ma ko bëgg tax na fàttiwuma ci dara bisu tey bi tawfeex jooju yàlla defal ma ko ci moom ba bi ma jógee fa ma doon jàngi alxuraan ñëw Tuubaa ma takk ko ba ma nekkoon di jàng rek ak bërëg yu mel yu bari fa moom lay nekk sëriñ Abdou Hakim Mbacke diirub dundam dafa saxoon dàq di jaamu yàlla suñu borom waaye liggéeyal maamam ja di cheikhul xadim moom jëmm ji sax jot naa dem ca màkkatal mukarama ngir matale ponk lislaam boobule ma bëgg ma taxaw ma defoo ma ba àgg bokk na ci ba muy dem màkka xasida yi mu bëggoon a yóbbaale ngir di ko jàng man la ko bind loon fàttaliku naa ci jaalibatul maraaxib ak yeneen ak yeneen man maa ci dolli xasida rabbi karimun boobu sunu borom Sëriñ Tuubaa tënki ci radiyallahu anhu wa ba ma ko ca dollee ci yama doon binduloo ba yët ko bi ma ñëwee daf caa am mbégte am ci mel na ku ci yéem ci xasee di gëm ci dolli ak ni mu ko ñoree sëriñ Abdu nag noonu laay màggee ci ronam ci tànkam bëgg ko taqoo ko moom du ko sori ba lu baree bare ma xam ko ci moom ma amaat ci ay xaas yoo xam ne du waxi rajo waaye am lu luñ loo xam ne sëriñ Basiru moo na ko boole ci baat Cheikh Abdoul Hakim noonu it la taxawoon nag mboolem njabootug Serigne Touba gi rawatina ñi nga xam ne jaaroon nañ fi nekki xalifaam. waaye ma gis itam kilifaam yi mu nekkal ci àdduna fa ko teg mu njabootug Serigne Touba gi fi nekkoon ndax Cheikh Abdoul Ahad Serigne Abdoul Khadir Serigne Saliou Serigne Chouaib Serigne Mourtada kenn ku ci nekk ma xam cër boo jox Serigne Abdoul Hakim ndax loo xam ci moom noo ko jàpp ci baati. noonu yi la àndewoon ak kilifaam yi desoon ci kaw suuf itam muy sëriñ Moustapha Bassirou de sëriñ Cheikh Fall ba ci sëriñ Mountakha bi ku ci nekk toog nañ ay jataay ma fekke ko kenn ku ci nekk am loo koy xaasal ci sa bopp ak loo koy seereel ak foo ko teg ngir loo xam ci moom loolu lépp xam-xam yi baatin la yërëmoon taalibe yi lool daan leen taxawu ci saasu ne waaye daawul dañ di leen digal lu leen di jariñ rawatina jaamu yàlla nu muy nun taalibe yi nag ni mu doon ànd ak nun ci yërmande ci cofeel ci yaatu ci taxawu njaboot ci yërmandeem yërmandeem jooju ak cofeelam googu tax na taalibe bi yëpp xamoon nañ ko ci ku mas am yitt dis ko sëriñ Abdul Hakim moo xam jàngoro joo bëgg a tàggool la moo xam yittee adduna lu mën a doon gëm nga ne boo ko disee sëriñ Abdul Hakim bu la ci ñaanale yàlla faa ci saafara ko ba tax ñu baree bari sax dañ ko doon bëgg a def ñaan ñaankat ngir ñi nga xam ne ak ñaanu sayr rek lañ xam te luñ lu ko nit ñaanloo yërmandeem ja tax bu ko ñaanee moom ñu bëgg ko def sëriñum ñaankat te moom sëriñub tarbiya la sëriñub xaqiqa la sëriñub baatin la boo xam ne ci taalibe lay dund ci xaqiqa lay dund ak taalibe yi di leen ci faj seeni aajo ba ñëpp jàppee ko loola sëriñ Abdou Guité joo ko mas a wax yërmandeem ak jéeg jéegeem ci yàlla bu la ci ñaanalee ngi siiti ji loolu ñu bari xam nañ ko si jàpp sëriñ Abdul Hakim Mbacke nekkoon ku ami teggin bëgg lool maamam ja di sëriñ Touba. waaye nekkoon jëmm joo xam ne ku fonkoon lool ñi nga xam ne ñoo di taalibe yi la. sëriñ Mountakha de baat yii ma wax ne ba mu teg ci ak ndawam mu nekk ci gone dalagut alxuraan ak ba mu dellu alxuraan la ko sepp ci biir moroomam ba nii mu ko tàggoo sëriñ Mountakha loolu ko seere ba tey te keroog bi mu wàccee man sëriñ Abdou ñoo tàggoo fii ma jógee ci tukki. ñëw siyaare ko tukki booba saa su ma ko fu ma ko fekk ak guddi dana ma xaasal ci boppam ci waxtaan yu yaatu waxtaan yooyu da caa dolli ko lu kiimaane fi mu doon waxtaanee mu jóg di bàgg dama ñëwal ma topp ci moom fi muy bàggee bu wàññi ko nu ànd diggante boobu sëriñ Isaaxa woo ma nekk ca Iran dama foo nekk ma ne ko dama nekk nii fi sëriñ Abdou mu ne ma bu ma ko ñame woon de ne la ko waaye ñemewu ma ma ne kon da ngay bàyyi ma boo si Isaaxa ma ngi tirti kon damay yalwaan téléphone bi te jox sëñ Abdou ne tey sëriñ baax te baaxu nit kii ne bu ma ko ñemee woon a ñaan kii ne ko dama naa ko yalwaan kon te joxaat la ko addiya baat yooyu mu di ko mu sëriñ isaaka ba mbir mi amee bi mu ñëwee daf ma ne yow moom dama lay neexal ndax baat yu ma yu neex yi ma mujj dégg ci sëñ Abdou loolu ci yaa tax ma dégg ko ndax li mu doon wax ne sëriñ Tuubaa ka baax te baaxu nit kii ne bu ma ko ñemee woon ci ne dem naa ko yelwaan kon te joxaat lu ko addiya loolu di Sëriñ Tuubaa rek am ñu mel noonu sëriñ yëpp loolu la mujj wax ko dégg ci moom te loolu booba dama nekk ak moom te loolu nag jataay yooyu ay junni wala téeméeri jata jataay am nañ ko yoo xam ne guddi damay ñëw ba buy bàgg nu ànd bu noppee bu toogee téye ma nuy waxtaan nee naa wax guddi gu ne léegi damay waxtaan ci genn kilifa di ma wax jaar jaari kilifa googu di moo wax xarbaax kilifa googa ba ma xam ci kilifa googa loo xam ne feeg mi faat dootuma ko fàtte sëriñ Abdou baree ma ko seddoon ci mi ngi fi bàyyeekoo wuuji suñu borom ci àjjuma dëppoog le 5 juillet 2013 dëppoo woon nag ñaar fukki fan ak juróom ci Shahban atum 1434 ginnaaw gàddaay yontu bi sallallahu alayhi wa di ko ñaanalaat yàlla yokk ay leeram te taas ci barkeem.